بلا تناهي سخي ولم يا عبد الله وسنت الله بلا تناهي على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk ju ñu seetaan ci travers internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi xam ne mooy alxames war a dëtmal ajjuma di seydul ayyaam ñu ngi fii ci Léona Niassène kër maam alxaaji Abdoulaye Niass kër maam xalifatul xaaji Mouhamad nga xam ne maam alaaji moo fàkkoon fii 1911 gannaaw bi mu demee Fès 1910 tuddee ko Léona mu nekk fi ak njaboot gi ba 22 muy ji bu boromam ñu denc ko fii si zaawiya bi nga xam ne moo nekk zaawiya bii ñu doon liggéey ak liggéey bu tedd bi waaw nga xam ne kenn ci ci njaboot gi waaye ci sët sëtaatu maam alxaji Abdoulaye Baay Ummi moo ko liggéey liggéey bu taaru bu rafet bi di wax ne lépp lu mu ci def yàlla nako suñu borom ful te dërëm bu mu ci def rek yàlla nako suñu borom fay may wax ne Cheikh Baye Oumy sët la ci maam alhaji abdullah Niass ndax boy xol ci wal bayam ni ngi jëm ci Cheikh bakkar al Musanna Baye Mbay way wal wal yaayam muy ummi mi nga xamne papa dam ibnu Cheikh al Islam moko jur kon mom bete bete la waaye sët la soppe la tabaarkallaahu ñi ngi ñaanal Cheikh Baye moomu lim ci def yàlla ko suñu borom nangu di nuyu suñu ñaari xalifa général yi buñ nuyoo Baye Cheikh Tidiane xalifa ñees ñaanal ko mu yàgg fi lool waaye ñaanal ay rakam yu góor ak jigéen nuyu Cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, kon liggéey bi fi mu toll waxoon nañ dañ leen ko wan ñi ngi fii ci euh, zaawiya maam Alhaji Abdoulaye maam Alhaji nag nekku fi. ndax ndax maam ay doomam ñi ngi fi ay sëtam ñi ngi fi kon dañuy dugg rek gis ngeen fi liggéey bi fi la toll mooy liggéey lii moo newoon zaawiya bi bi mu jógee Faas dafa natt zaawiya Seydi Ahmed Tidiane si radiyallaahu taala anhu bi mu nattee zaawiya bi jaar Cees jaar Tiwaawoon nattal leen ñëw fii ci Léona nattal boppam zaawiya bi zaawiya bu njëkk ba nag daane woon nañ ko bàyyi sa ko daane woon liggéeyaat ku liggéey bu am solo waaye zaawiya bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyaat ni gis ngeen fi liggéey bi toll waaye gis nga tam xabru bu njëkk ba yaakaar naa bi ko maam xalifa tabaxee Cheikh al Islam maam moo ko ñëwoon tabaxaat ko bi mu ko tabaxee ba tam mu ràpp ki ñu wax Cheikh baay ummi di sët sëtaatu alxaaji Abdoulahi Niass euh, tabarakallaahu ah ma ne ko Cheikh Baye liggéey nga lu am solo yàlla yàlla fay la dëgëral la doole te dooleel bi buuba topp ma ñu dugg ci biir ah, yaakaar naa waxoon nañ leen dañ leen woon fu liggéey bi toll nañ njëkkee ci maam alxaaji Abdoulaye ñas alkabir ndax lépp lépp ñenn ñenn ñu ngi waxoon nañ mooy zaawiya alxaaji Abdoulaye Niass wàcc liggéey 1922 ñu denc ko si zaawiya bu tedd bii moom moo fi nekk ak ki nga xam ne moy mam Khalifa di tawam génn adina 1959 waaye alxaaji babakar al awwal moom mi ngi tëdd fii alxaaji Omar Khalifa di sama tourando yakarna mom nak nag du doon maam alxaaji mom seut la sëtu maam alxaaji la mom génn adina 2009 waye ñom ñent ñom ñoo nekk fii maam alxaaji mo nekk ci kanam تبارك الله مام خليفه توبسي الحاجي بابكر الاول nga xamne mo doon jité fi zawiya mam alaaji bi nekk seen diggante ka ca mujj nak moy sama turandoo alhaji omar khalifa euh nekkon khalifa mam khalifa génne adina 2009 yàlla yàlla yokk sen leer limay wax chaque jour mam alhaji moy lépp mam alhaji moom la waykat ba xooloon ne ko maa laysa xiilun mislu abdullahi fi baasil miqdaami kon dañuy ñëw wan leen tam ba tey fii nga xam ne li ma doon wax rek ñi ñas ñas ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di nuyu waaw buñ ñëwee àpart dañ leen fii cheikh mouhamadou nasiru suñ maam alxaaji Ibrahim Niass Baye wa saadatu anaam saaxibul fayda moo ko jur waaye ki si topp maam Aman Niass la doom maam Alxaaji la kii sëtu maam Abdoulahi la waaye kii doom maam Abdoulahi la sama maam moo nekk nii sama ñaari maam maam Cheikh Omar moo jur man sama yaay maam Cheikh Omar Cheikh Khalil moo jur sama yaay waaye Alxaaji Babacar moo jur sama baay kon man sama ñaari maam a ngi kon naan ku bokk ci gétt gi naan si meew mi مام سيرين باي موي شيخ ابو بكر المسنى باي سيرين باي بو كير جبل دي دي مام سي شيخ باي امي ميغا خامني موي ليغي جيف جوري جي ندخ سان باي نينا كيكو جيف نانكو واخ شيخ باي امي مامام مو تدني مام شيخ تيجان مام شيخ تياتو مام الحاج عبد الله نيس مو تدني واي مام شفيع مو تدني دو مام الحاج عبد الله نيس waaye ki nga xam ne mooy maam Chafiu moom tam mi ngi tëdd nii waaye alxaaji Mouhamad Zeynabu mi ngi tëdd nii waaye imaam alxaaji Zeynabu mi nga xam ne moom lañ fi mujjee denc TV ak Naylul Maram gis nañ zaawiya maam alxaaji Abdoulaye li ma waxoon ne mi ngi génn àddina 1922 maam xalifa dajale njaboot gi doomi ne leen dañuy tabaxal baay xabru ba ñu dem tëngéej foofa la daloon zingeñ fi daajoon fa lañ ko jëndee bant yaag lépp biñ demee ba mu ràpp maam bàyyi ñëw daane ko tabaxar ko tabax gu yanj bi fi newoon waaye bi mu demee nag ba ràppaat ki ñu wax Cheikh Baye Oumy di sët sëtaatu maam alxaaji Abdoulaye Niass taxaw taxaw bu am solo liggéey bii te yaakaar naa yéen ay mbokkam ngeen ay xaritam ngeen lu ngeen gis sant yàlla bu baax alhamdulilah di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp fii ci xadara Maam Alaaji Abdoulaye Al xam ne tey ñu ngi ci barabam ngeen ñëw fi di def reportage bu am solo bi pour wan nit ñi liggéey bi fi tollu toll ndax liggéey bi ñun ak yéen ñoo ko bokk ndax suñuy maam ñoo fi tëdd suñuy baay ñoo fi tëdd. suñuy sëriñ a fi tëdd amalaadi ñun tëdd fii ñëpp ki ci jiitu di Seydi Mouhamadul Khalifa mooy taawam bu góor Baye Niass wax na ne wax na ci xàqi maam Khalifa ne ko yow su fekkoon juddu nga mel neneen ñun noonu la mel waaye dañoo juddu fekk nga am xam-xam fekk nga jàng moo tax ñun ñëpp ci sa ron lañ aw ba yàlla may ñu teraanga jënee baye mës na di firi alquran ci Medina maam khalifa joge fi dem seeti ko dem ñewé ba bay bañ seen mbooloo mi di ñew ñu ne ko kan la ñew na Cheikh mohammedul Khalifa mooy ñëw bàyyi ñës dafa juk taxaw danañ ko indil benen piliyaan ñu indi benen piliyaan maam khalifa tok ci wetam baye nako ko ubbil ñu ñu barkelu ndax yow jang ci mom. ñaar yoon te ñun benn yoon lañ jang ci mom maam khalifa nako yow waxal rek yow li ngay wax yalla la ko xamal. bi mu firee ba ca kanam maam xalifa bi muy tëj daf ne mbokk yi lu ma leen waxoon euh, xaw ma nu ko firéetee ci olof fàtte naa ko Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé moo ma ko nettali ca Amérique mais fàtte naa li mu waxati woon ci olof xaw ma naka boo ku weddi xaw ma lan demal seeti sàkkam ma xaw ma ko léebootoo ci olof mais fàtte naa ko loolu yëpp muy ànd boo xam ne ñaari kër yi ànd nañ ko di ànd bu rafet. ànd boobu nag mooy dox tey ba ci ñun ñii di ay sët di ay sët sëtaat tam mu rafet loolu euh, duñ def nag lu dul gërëm Cheikh Ibrahim doomi Siri Tayib ak doomi Umu Kalsum mu Sëriñ Daam donc moom sëti Maam Alaaji Abdoulaye la ci ñaari côté yëpp sëti Maam Alaaji la ci baayam ndax Sëriñ Mbay moo jur baayam Sëriñ Mbay Maam Alaaji Abdoulaye moo jur ci côté yaayam sëti Cheikh Ahmad Daam la Cheikh Ahmad Daam Cheikh Ibrahim Niass moo ko jur Cheikh Ibrahim Niass moo jur maamalaaji moo ko jur kon moom sëti maamalaaji la ci ñaari côté yëpp ñu tuddee ko nag Cheikh Ibrahim Niass baayam tuddee ko Cheikh Ibrahim Niass mu am ci mbëggeeli baay loo xam ne eh, jaral na ko lu nekk ba tax na lii balaa mu ci am initiative dafa dajale xaalisam ba mat mu door a dem ci sëriñ bi ne ko saa yooyu ma bëggoon liggéey li ci war a dem lépp mi ngi nii maanaam bu ci kenn benn def benn dërëm mu liggéey ko ba mu toll nii kon loolu ñun la ko liggéeyal xadara na la ko liggéeyal xadara Léona Niassène la ko liggéeyal ndax tey ñun bu ñu jógee mit na ñëw di fii yéen yéen a ñuy dalal te wax dëgg yàlla am euh, li ma wax rek ci alaaka bi nga xam ne dox na ci ñaari kër yi muy alaaka boo xam ne alaaka bu rafet rafet rafet rafet rafet la keroog bi ñuy waaj a commencé ba dem ci xalifa bii nekk fii nii Cheikh Tidiane yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér yaram ne ko sëriñ Maahi moo ñu yónni mu sa keroog dafa kurti kurti di làmb ci poosam pour génnee ne maa ci maa ci defaale lii man maa ci barkeeloo lii Cheikh Baye yëkkatiwaat xaalis boole boobu la mu amee woon jox ko ne ko sëriñ bi ñaanal ñu ba liggéey bi àgg kon moom itam ñaanam nangu na xam naa ne danañ préparer inigration bi danañ ñëw waxtaan ci yéen nga xam ne ñu nekk mu nekk benn journée boo xam ne ñu ñoom ñoo koy organiser xalifa bële ca Medina Baye génn xalifa bii teeru ko ñu inauguré zaawiya bi pour taalibe yëpp mën koo jëriñoo ndax fii moom li fi nekk ci njëriñ kenn du ko waxal kenn kenn du ko waxal kenn kenn ko waxal benn taalibe kenn du ko waxal benn jullit a ngi jugee fu nekk ñëw fii di faj soxlaam te egsiwul na dugg ci benn kër ñeseen fii nii fu nekk lay jógee rek ñëw faj soxlaam dem yoram kon nag fii barab la boo xam ne képp ku ko liggéey rek ku yàlla dimbale nga liggéey ko kooku yàlla nekk yàlla def nga bokk ak moom sant yàlla moo la war ñu ngi sant yàlla ci Cheikh Baye bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla lafal cat bu baax a baax a baax a baax te may ko fan bu gudd moom ak ay mbokkam yëpp li ko jàppale yëpp ndax wax dëgg yàlla am nit dana bëgg a def lu baax mais say mbokk xiir la xiir la ci leneen waaye moom ay mbokkam dañ koo xiir ci lu baax mu ànd ak ñoom di ko def kon nag lépp lu ci am ci xiw rek ñun ak ñoom a koy ñun ak moom a koy bokk kon nag ñu leen di gërëm bu baax a baax a baax euh, di gërëm euh, site bi nga xam ne tey àddina yëpp ñu ngi koy seetaan euh, di ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla defal jàmm yàlla barkeel yëngatu ak dal lépp nangu te liggéey bi njëriñ li yàlla na tasaaroo ci ñun ñëpp ci barke yonent bi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa jërëjëf Niass ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di wax ne gis ngeen liggéey bi ni mu taaroo ni mu rafetee tabarkallahu lii lépp euh, mu doon koo xam ne mos dafa alalam muy Cheikh Baye Oumy tabarkallahu di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla defal ko tawfiq ak taysiir euh, ngeen gis li ma doon wax ba tey rek euh, jëmm ji di maam alxaaji moom la moom moo demoon ba fees ci rawdu ba bi mu wàccee da daal di dof ne alhamdulilahi ala wusuli li faasa daari cheikhina almamuli is zurtuhu niltu bil uluma bi fadli azimi wal fuhuma wa niltu asraran wa anwaran kama niltal fawaade wa xayran qad sama dal na qasida ba ya cheikhana ahmad tiyaani ya amali ya xayra man warisa nabiya maljana ya qutbu ya xawsu يا غيث الأنام معا فلتسكن عبدك الذليل مولانا يا حب سيدنا تابعه أبدا فدل عبدا جورا صار حيرانا يا كاشف الكرب فلتكشف له الكربا افيد عليه يا مفيد فيضانا يا من له المن والمنع كما ظهر يا بحر كل والانفاق أخرانا يا برزقا قاتما إمام من حشر من الأكابر والأقطاب تيجانا لولا كما زاقت الأقطاب معرفة وغيرهم مسجل منكروهم مانا وأنت أعلهم بالله أكثرهم خوفا له زلول فاز من دانا حمدت ربي إذا ما كنت تابعه يا ويحم بغيد من سموك كان يا من لو الشرف تيني ودي النعم وشرف العلم يا محسن مأوانا يا وارث الحب والخل بلا فنادل فتكسب الحجب يا أبي أزمانا هذه هديتنا فقز إليك بها ثم إلى حبنا حبيب مولانا وطهر القلب والجسم أيا قمر يا حاضرا صامعا بالمن منانا اسمع إلهي يا مولاي يا سمد دعاء عبد الحزير صار هيمانا بجاه سيدنا وجده أجبا فسرعة سرعة الرحمن رحمانا صل وسلم على شفيعنا أبدا يا معطي الفضل ألف لعنانا قصيدة بوبو لا دفتي شيخنا مو إمام الحاج عبد الله نسمو من خمنا موجود 1845 واي جن أدنى 1922 موم لن دنت في اك نجابوتام كو تيد كو سل كو كيغا خامني موم لن دون ليغال ني زاويه بي دي نيانال شيخ باي اوموليم سي yal na ko suñu borom ful yal na ko suñu borom aar yal na ko suñu borom may wér kon ñi ngi fii ci musulé maam Hadj Abdoulaye seen mbokk Omar Niass Bouba Ndiaye ci caméra bi Nelou Maram ak ak Niassène TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yaare dem faas jëlee fa ay xaas yum rawe gaaya barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa